ba faut foofee nag nga xam ne kii di Ibrahima Touré ci ay kàddu nag gannaaw ba ki nga xamee ne euh, mooy Ousmane Noël Dieng demoon na foofee ca diwaanu euh, Kabatoki am nag ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci seeni gox boobee loolee nag moo waral ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Touré janoo ak taskatu xibaar yi daal di weddi ay kàddu yooyee nga xam ne kii di Ousmane nawel Dieng yëkkati woon na ko ci la jotaayu xibaar nag da ngeen ko teewlu moom Ibrahima Touré muy àddu jëmale ci mbir munu mel buñ ca noppee itam dinañu àddu wax ci lu soxal euh, kuréel gi ëmb layookat yi nekkee fii ci diwaanu Sénégal ci seen i lëkkaloo nag ak ay ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Union européen ci la ñu amaloon nag ab atelier de formation daal di ko jagleel way taskatu xabaar yi nekkee fii ci diwaanu Kaolack loolee nag la ko wundu bokk na ci ngir rek ñu xool ana naka la ñu mën a def rek ba mën a gën a càmbaraat bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy wàllu xibaax bu jóge buy jóge ci lépp lu jëm rek euh, ci wàllu métital yu ñuy amal euh, jëmale ko euh, ci awra yi ak yeneen yu nu mel nag ñu koy duppee ay violence sexuelle waaye itam buñ ca noppee itam dina dinañu àddu nag wax ci tukki nemmeeku bi nga xam ne njiital Chine mi ngi koy amal fii ci diwaanu Sénégal loole nag moo waraloon ba njiitu réew mi Macky Sall dalaloon ko ni ki altine gi ñu weesu foofee ca de la République loole nag la ko wundu nag daal dina ci bokk ngir rek ñu xool nu ñuy def rek ba diggante Chine ak Sénégal gën a rataxaat bu baax a baax loole nag moo waral baatum ren ji mu ñëw rek fii ci diwaanu Sénégal fas yéene fee am ñetti fan yoo xam ne ay tukkib nemmeeku la koy amal fii ci diwaanu Sénégal kon ci la jotaay xibaar nag da ngeen lu lépp lu tukkee ci ndaje boobe ñaaree ñaareelu xaaju xibaar yi mbokk yi ñaari ponk lay doon xibaaru biti réew yi tàggat yaram nga xam ne moom moo koy buural kon mbokk ponk yokku yaa ngoog su ngeen taaxirloo tuuti yaatal geeg faram-fàcce gi gannaaw bàkk ba lay doon. mbokk yi asalaamaaleykum gannaaw bu ñu leen nuyoo waatee beneen yoon xibaar yi nak nu ñu leen ko junjee woon ca bopp bala ñu koy wéyandee ak ay kaddu yi nga xam ne kii di Ibrahima Touré daal dina ko yëkkati foofee ca kabato ki gannaaw nag ba kii di Ousmane Noël Dieng amale ab tukki nemmeeku gannaaw tournée bi nga xam ne mu ngi koy amal mu koy duppee nag Kaolack sama yite ci la yëkkati woon ay kaddu nag jëmale ko ci seen gox googee di kabato ki loole nag moo waral nga xam ne Ibrahima Touré ak taskatu xibaar yi di weddi nak ay kaddu yi nga xamne ne Ousmane Nawel Dian yëkkati woon na ko ñu tewlu ko mom nak Ibrahim Touré aduna ci micro fallu Galassi mën na wax ne liñu wax ci problème ndox dara amu ci ben parce que euh Ousmane Nawel Dian mo fi ñew damay wax euh, amut lumu mu waxut nak mais ñun population Kabatoki xam nañu fiñ nekkon ak fiñu pap Pape Demba jëlee ak fiñu mu ñu yóbbu. daaw may nañu 8 km addition d'eau daw 8 km addition d'eau forage bi nek en cours fi ci ginnaaw dekk bi bokku na ci ñiko ko kon donc koku boko attaquer ci walu ndox da ngay wax lu la neex tay gi maternité biñu am ni mu tabaxal ñuko maternité bo xamne la kaolak sax su paré yaakar na ne hôpital régional sax buñu mën nañ mën nañ ñu jox malade ñu accueillir ko sunu CM bi bi mu grâce à lui motax tay sunu domi di jang école 1 tey soo gisee ñuy jàng te jàngatuñu ci biir ndox grace à lui kon kooku du ñu am nit ku mel noonu ñuy seetaan beneen responsable politique boo xam ne jëruñu ñu dara defaluñu dara lu dul ñëw taxaw ci biir dëkk bi di wax lu ko neex kooku duñ ko seetaan ku nekk xam na ne actuellement waxuma la Kabatoki waxuma la Kaolack Sénégal yëpp laa wax ku nekk xam na ne problème mu ndox dafa bokk ci loo xam ne si problème mu Sen'Eau la xam nga aussi nit ki bu ñu jaawalee compétence. pap Demba compétence am nekul problème mon ndox pap Demba compétence am ci walu courant la walu ndox mi dafa mëna def ay démarches te mu ngi ci te ñun xam nañ lolu tay li nek compétence am Kabatoki xëccoowu ko kenn Kaolack xëccoowu ko kenn muy raison bi muy département bi muy walu électricité ku nek xam nañ lolu compétence pap Pape Demba Bitèye la tay man à ma grande surprise tay ñaata citerne ñoy dugg ci dëkk bi pour découvrir pour compléter gap bobu kon donc. amna lo xamne dafa xawa sax ñak teggin même ay nit buñ la ci interpeller yo amna lo xamne tay amna lo xamne tay amna no xamne buñ la ci nit ñi interpeller sax en tant que responsable politique nga bokku bir APR nek ak sa nawle bir APR amna no ci war adoué mais lima la bëgg wax bu bëgg la ko wax moy ku xam ma dembe bi tay ak politique ak sa façon de faire ak politique de développement bi mi def ak politique de euh, social bi mi def ku xam ma dembe bi tay ne mu ngi bay askanu kaolak bu baaxa baax xel waxuma la sax askanu mais askanu Kaolack askanu département Kaolack ku xam Pape bi Bitèye ak démarche bi muy démarché nga xam ne kii mu ngi bàyyi askanam Kaolack parce que diñ Saalum Saalum la diñ fils de Saalum la. moom dafay ñëw di wax ay waxam Ousmane Noël nag ku nekk xam na ko ku nekk xam na ne dënn lay waxee nawloo naa ko nag. parce que vraiment ñoo bokk nekk APR te lenn rek moo ñu ñor moom mooy président Macky la ñu bokk ko kon duma ma ko wax dara loo xam ne vraiment dafay xaw a ñagas. ñu àddu wax ci leneen wax nag lu soxal déddu àdduna juróom ñaareelu xalif bu Njaasaan di Cheikh Bekkayo Kunta moom nag mu déddu àdduna ni ki démb ci talaata gi euh, ca diwaanu Ndakaaru loolee nag ci ab feebar boo xam ne teraloon na ko mooy ki nga xam ne moom moo fi nekkoon juróom ñaareelu xalif bu Njaasaan ñu teewlu resi bi ak Assane Thiam naxarati sa mooy li am fële ca Ndiassane ni ki démb la ñu ñàkk seen xalifa général di Cheikh Bekay Kounta ñu gën koo xam ci Cheikh bu Kounta moo nekkoon juróom-ñaareelu xalifa General bu Ndiassane moom di doomu Cheikh Bekay mu ngi daal di gane aduna atupa 1929 moom sax fekkeewul jamono ya waajuram bu góor ndaxte mu ngi gane aduna ñaari weer gannaaw bu waajuram bu góor bi di Cheikh Bekay génne aduna mu ngi rek yaro ci loxo di magam bu nyukoyowe ñu koy woowee Bekay Ndiaye mu bokk ci li ñu ko mën a xàmmeewee di bëggub alxuraan ca it ba muy gën a nekk ndaw ba léegi amit culture arabo islamique bu baax di ëpp ci njànguma alxuraana mu ngi ko defee foofee ca Mauritanie gannaaw bu mu fa jëlee xam-xam bu yaatu ci lépp lu jëm ci wàllum alxuraan ak lu ni mel mu ngi daal di rek ñibbisi fii ci diwaan bu Sénégal tekk ay valisam fële ca kër El Hadji Ibrahima Niass mu nekk fa ci jàmm ak salaam kii di Baye Niass ko promettre moo waral mu nekkoon ab homme de confiance am nekkoon nag ku jege woon Baye Niass lool noonee sax la ko kii di Cheikh Maye Ibrahima Niass bi nekk xalif jamono jii daal di jege woon bu baax Cheikh Bécaye Kounta gannaaw sax bi njàngam bënnee bokk na rek ci ñi gën a rafet carrière ci lu jëm ci wàllum administration ci fàttali rek kii di Cheikh bu Kounta xalif boobee sax laata mu koy doon nekkoon na fi ab commissaire bu information bu agence de presse bi ci diwaan bu Sénégal ñu koy woowee APS gannaaw sax laata Ses lu tollu ci fanweeri at tégul tankam fele ci Ndiassane bu ñu sukkandiko ci Cheikh Mambou ki di secrétaire particulier gannaaw ba ki di magam bi génnee aduna ci le rek daldi di ji momo ci Ndiassane mom momé sax nékkon nit bu discret bëggul won sax ñuy addu lu bari jëmele ko ci ay mbiram Cheikh bu kunta nékkon nit bu amone relation bu baaxa baax ak yenen keur nekk ci diwan bu Sénégal lu ci melni ni naka noonu it ñi di tiwa wan seen digënté rafetoon na lool loolee sax moo gannaaw bi mu génnee àdduna ñi di nguur gi yónni rek ki nga xam ni mooy jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum biir réew mi ngir rek mu dem fa ngir rek mu dem fa daal di yóbbu ab njaala moom mee di jëwriñ ji sax daal dina rek andi ay leeral jëmale ko ci ñàkk gi nga xam ni moom la Sénégal wër ngir këpp ñàkk jaajëfal euh, bu baax a baax dañuy desandi sax ba tey euh, ci dëddu àdduna juróom ñaareelu xalif euh, bu Ndiassane nag xam ngeen ne ki nga xam ne moom mooy jëwrin gi ñu dënk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi di Antoine Félix Diome nag teewaloon na fa njiitu réew mi Macky Sall ngir rek yëkkati njaalam daal di ko teg ci umma islamique bi ñu teew lu ay kàddoom moom jëwrin gi ñu dënk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi di Antoine Félix Diome ci micro Kaolack TV. ma indi kàddu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall muy bisu tiis Kusel, ndax ku bax ku sel ku nangoo li taxone sans borom indi ko euh, monsieur le président de la république Macky Sall dina fi ñëwal bopam waye ci saase daf ñu wax ni nañu juk ngir yëkkati njaalam muy njaalu réew mi yëpp teg ko ci sa loxo xamal la ni ñun ñoo bokk tiis wi nii boo demee nga na xamal sëriñ bi ni ñi ngi ci wetam fas yéene ànd ak moom sumb ak naal yi nga xamante ni yëpp nar na ko yeggaleel magam yi ak waajuram yu baax yi fi bàyyikoon dama wax léegi ci suuf ni ndono lu rëy moo am ci kër gi sans borom dimbali ñu nag ba ndono li ci loxo yi mu jaar yeb ñu tey ko tey ñu rafet dox ci lañ ca wara dox sam ci lañ ca wara sam ba mu exi ci yow li ñuy ñaan ko moy sa borom yal na la degeural lépp loo xamante ni sa wajur yu bax yi naaloon nañ ko sumbon ko sentu won ko yal na ci def lu kawé sen te dafa am sank dama wax kaddu go xamni da daan jóge ci serigne Abdou xamna ngir tëj damay wax kaddu go xamni da dan jóge ci Serigne saliw da dan faral di def man de fekkee nako ba tay bu nit ñëwee ci mom mu koy ñaanal wala muy sumbu wala muy tok togay bu da dala nan yal na yewé ne ci sa loxo kon donte wuko yoyo wuñu ko ñi ngi barkelu ci kaddom yoyu di ñaan sans borom ci mohammed ali sallallahu alayhi wasallam yal na lepp yewé ne ci sa loxo lolu mo doon kaddu président de la république son excellence Macky Sall ci sama kàddu nag rédaction bu Kaolack TV mu ngi yëkkati njaalam daal di ko jagleel umma islamique waa itam euh, ci njabootu ku làqu ki ñu àddu wax ci leneen nag mbokk yi junjoon naa leen ko euh, ci bopp ba kuréel gi ëmb ñi nga xam ne nag ñoom ñooy layookat yi nekk fii ci diwaanu Sénégal ci seen lëkkaloo nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Union européenne ci loole la ñu amaloon ab ndaje boo xam ne dañ ko jagleel taskatu xibaar yi nekkee fii ci diwaanu Kaolack loolee nag rek la ko wundu nag bokk na ci ngir rek ñu xool ana naka la ñu mën a def ba gën a mun a càmbaraat bu baax a baax méttital yi nga xam ne ñoo ngi koy def jëmale ko ci wàllu awra ak yeneen yu nu mel ñu koy duppee nag ay violence sexuelle ñu teewlu ki nga xam ne moom mooy Aminata Samb nga xam ne moom la ñu dénkoon wàllu yu ñu mel àdduna ci micro nu Diouf. mu nekk activité boo xamante ne ñoo ngi ko lëkkalool ak li nga xamante ne mooy Union européenne

mën nañ aider parce que journalistes yi ñoom dañ leen di topp société bi da leen di topp ñoom ñooy joxe information yi nit ñi dañ leen di déglu te ñoom pilier leen boo xamante ne mën nañ protéger la victime à travers li nga xamante ne moom mooy xibaar yi ñuy joxe suñ ko traité ci na mu waree looloo tax tey jii ñu daje fii pour gën a yokk seeni xam-xam ci li nga xamante ne mooy métital yi ci awra ak ci li nga xamante ne mooy loi bi génn di atte atte rey nit ki nga xamante ne dafa siif wala ki nga xamante ne dafa xufawee xale muy pédophile loolu tey moo ñu dajale fii ci Kaolack si projet boobu nga xamante ne li ko tax a jóg mooy ñu def le tout ba nga xamante ne kenn dootul métital kenn ci awra métital yëpp dina deñ ci loolu nu ñu koy defee dañuy siiwal waxtaan ak nit ñi yee leen former leen siiwal li nga xam te ne mooy loi bi nga xam ni am nañ ko en 2020 wàllu politique nag lañuy ñuy àddu ak tolluwaayu réew mi xam ngeen ne nag fan yi ñu weesu gisoon ngeen ne nag dëkk bi tàngoon na lool loolee nag ñu bëri ay xale yoo xam ne am nañ ci gaañu gaañu ñenn ñi ñàkk ci seeni bakkan loolee nag waral ba suñu ndaw daal di wàcc si dëkk bi fii ci diwaanu Kaolack daje ak ñenn ci askan gi ñoom ñi nag la xam xamle rek mooy rafetlu loole loolee benn yoon ñu teew lu trottoir bi ak ak ki nga xam ne moom mooy Assane Thiam ak. Ka Babacar Mbaye bu njëkk da ngay yeewu tranquille xëy liggéey léegi boo yeewoo démb comme démb nii man bi may wàcc 18 heures laa wàcc ndax xaw ma dëkk bi ndax kuur fa dina am xaw ma ndax nit ñi dinañ xeex ci dëkk bi ak yooyu léegi li ngay mujj obligé de fajar ngay ñëw teel a wàcc teel a génn teel a dugg te xam nga loolu aussi doxalul affaire bi ñun suñu liggéey bi amul heure war nañu mën a xëy 6 heures du matin ñaw ba minuit ñu wàcc xam nga loolu noonu mooy li nga xamante ni moom mooy métier terre ndax kenn fayu ñooy fay suñu bopp loolu moom vraiment kenn kenn kenn bëgg ko kenn bugg ko bu sañoon kenn ku ci nekk boo xëyee da nga xëy xëy liggéey tranquillement wàcc tranquillement loo am doyloo ko dem ñibbi jox ko sa njaboot quoi mais ak situation yi mu demee nii moom ak élection yi lu mu gën a jege si tamit xam nga muy gën a gën a gën a gën a compliqué man daal sama gis-gis mooy ñu toog ñu def waxtaan ndax tamit loo si waxtaan lay lay lay lay lay jeexee quoi waaw xam nga moom moom moom Ousmane Sonko moom loolu gis-gisam la quoi waa léegi ñi nga xamante ni ñoom ñoo woote xëy na ñoom am na ay conditions yu tax ñu woote moom tamit am na conditions yu mu teg pour mën a waxtaan ak ñoom moo tax ma nañu waxtaan rek kenn ku nekk ñu nangu la say condition bu ko defee waxtaan mën a am ñëpp nekk ci jàmm quoi waaw loolu daal laa ko gisee man. mu nekk loo xamante ne affaire de néewal doole affaire loo xam ne ah na trop si réew mi. waaw la néewal doole boo dañ ko jëmale ci nga xam ne ñooy opposition bi mu doon loo xam ne lu ñëpp gis la lu ñëpp teg seen tànk la mu nekk loo xamante ni day indi haine entre ñin ak ñi nga xam ne ñoo nekk si état bi. ndaxte boo laalee benn opposition mën nañu wax ne laal nga Sénégal yëpp te mu nekk réew boo xamante ne tamit dafay bañ injustice maanaam kii néewal doole Sénégal man nañu wax ne euh, réew boobu laa ko jàppee quoi. waa dégg la police yi euh, jàmmaarloo ñoom du suñu bëgg-bëgg du suñu loo xamante ne loolu la ñuy ut waaw damay lancer seen yëpp su ma sañoon nañu teey ñi dal te xam ne réew am na ne luñ koy lijjantee lu dul xeex si mbedd bi aussi tamit. xeex bi du lu ñu neex nag mais su ma ku nekk na daas kartam dugal ci poosam élection jot incha allah rabbi nga dem nga voté ki nga bëgg a voté incha allah mu gañe foog naa ne loolu mooy xeex bi mais pas wàcc si tali bi di yàq wala ngay jël alalu jàmbur ndax affaire dañ ciy laalaale loo xam ne bokku ci. wax dëgg yàlla ni mu gisee Sénégal neexu ma waa waaw su ma sañoon nañu changé situation comprendre waaw jeunes yi moom li ma leen lancé mooy ñu gëm suñu bopp quoi waaw te ku nekk daal waar bi nga nekk daal. na nga ci nekk daal waaw ñu moom loolu la ñu am quoi yaa ngi dégg waaw bu ñu xëyee ci kër yi ñu ngi ñëw ci marché bi dóor waar bu ñu wàccee ñu ngi ñibbaat suñu kër waaw duñ dugg ci benn situation duñ dugg ci benn manifestation waaw ñun moom loolu si ñu ne wax dëgg yàlla waaw marché bi lañ am ak suñu kër ñu àddu wax euh, ci leneen xam ngeen ne nag njiitu réew mi Macky Sall daal dina dalal njiital Chine loole nag ni ki altine gi ñu weesu euh, la doon am ngir nag euh, mu xool ana naka la ñu mën a def rek ba xool diggante Chine ak Sénégal naka la mun a gën a rataxe loolu nag nekk loo xam ne at bu jot lañ koy def ci réewum Afrique yi mu mel ni nag réewum Sénégal moom daal dina ci fës bu baax a baax ñu teew lu reportage bu Aboubacrine Kane pencum ndaw réew mi soppi xar kanam di waajal tëllu président assemblée bu Chine di wuyoo ci turu Zhao Leji ci mbooloo mi kay teeru kii di président assemblée nationale Amadou Mame Diop féete ci kanam ci fukki waxtu yu tegal fanweeri simili kilifa chinois bi ci ndaje mi nag nara gën a ñoŋal coopération yu dox ci diggante réewum Sénégal ak Chine. c'est là à mes yeux et à ceux de l'ensemble seen teewaay ci suñu réew nak dañ koy rafetlu bu baax ndaxte li day findel euh, encore une fois le club bi nga xamante ne réewum Sénégal ak réewum Chine yag nañ koy def ay atangi ni li nak di jëmal benen yoon partenariat économique bu am solo bi nga xamante euh chinois et sénégalais ñu ngi koy amal té loolu tay ji seen teewaay doon loo xamante ne da koy firndeel muy loo xamante ne nag am na solo lool ñu koy rafet. partenariat fécond porté une forte impulsion politique et diplomatique. Euh, ci atum 1960 ba nga ni euh, Sénégal ak Chine am ay diggante yu ratax jëm ci wàllum aada ak cosaan ak wàllum koom. mu di lu am njëriñ ci ñaari dëkk yi. Sénégal ak réewum Chine nag yàgg nañ jëflante muy loo xamante ne nag taarix bind na ko du léegi ci loolu nag ñuy wax ne nag visite bii nga xamante ne ñu ngi koy def day bokk ci loo xamante ne nag bëgg nañ ko def jëmale ko ci gën a ñoŋal ci jëflante bi nga xamante ne am na ci ñaari réew yi muy président ki nga xamante ne moo di Xi Jinping ak président Macky Sall ci loolu la ñuy dox ba tax na ñun ñi nga xamante ne seeni ndaw lañ

mbokk yegg si nañ nag ci ñaareelu xaaju xibaar yi junjoon naa leen ci bopp ba ñaari ponk lay doon mais dañ koy njëkkee nag ak ponk bu njëkk di xibaaru biti réew yi dañ ciy ànd ak El Hadj Baba Wade dal lañ jàmm si xibaaru bitim ñu koy dooree ci diwaanu Gabon ba nga xam ne ñu ngay waajal li nga xam ne mooy élection yi mbindu ma ca liste door na ndax euh, ca ca pays réew ma euh, foofu nag depuis démb ci talaata ji fukk fan juróom benn ci weru mais euh, ñii nag jëm ci élection présidentielle ak ay législatives ak locale ñu élection yi nag ñu koy waajal fële ca Libreville ak ca biir réew ma ca Port-Gentil ak ca capitale di capitale économique bu Gabon ñu woy rek fële nga xam ne mooy Comore gouvernement ba nag mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñooy way daw làq politique yi ñu ñibbisi ci dëkk ba ndax nag gouvernement bi li mu bëgg mooy ñu toog waxtaan ba jàmm mën a dellusi te ñu waxtaan euh, ci lan mooy jàmmal ak euh, amal élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu jëm si ci atum 2024 euh, ci altine ji fukki fan ak juróom sax ca ngoon la ko jël ñu dénk biir réew mi xamle ne autorité yi tàllal nañ loxo képp koo xam ne rek bokk nga ci biir réew mi te nekk ci bitim réew nga ñëw bokk ci waxtaan woowulee ñu jiwéyal fële ci diwaanu Cameroun ñu dëkk ñi nga xam ne dañoo dëkkoon ci quartier boobu te ñu jëlee leen fa muy Dikolo ñoom nag eh, ñooñu nga xam ne ñoo dëkk ci Dikolo muy ab quartier bu ndaw bu nekk ci biir Douala di ñaareelu pays réew man ñoom nag daje nañ ci dimanche fan ak ñeent ci weeru mais bi rek ngir wane seen ñàkk ànd ci eh, toj boobu nga xam ne toj nañu ko seen eh, seen seen gox boobu de ca mai deux mille vingt deux boobu léegi am na benn at ñoom nag kilifa yi dëkk ba nag ñoom nag joxewoon nañ ay suuf ngir ñu mën cee dëkk ngir tabaxaat seen dëkk boobu lee ca Guinée Conakry la ñu jëm ci di procureur général doo nekk ca tribunal ba moom nag def na ab bilan bu métti bu diis mai bi ñu génn ci yëngu-yëngu ya fa ndax bésu ay bi ñu génn ay ndaw ñoo ànd jàmmarloo ak ñi nga xam ñooy way takk der yi mun ñoom nag ñu amal ab euh, répression bu métti boo xam ne nii indi na juróom-ñaari euh, ndaw yi ci ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo euh, ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje bi ak ci syndicat ci réewum Guinée ñoom nag ñoom ñoom sax ñi ngi sàkku rek ab di wootewaat ñu nit ñi ñu wàccaat ca mbedd ma rek ngir ñaawlu ci yorin bi nga xam ne kii di yaa yore na ko seen réew moom ba nga xam ne Euh, ñu ci bëri euh, ñoom ñàkk nañ seen bakkan juróom-ñaar waaye nag cour d'appel ba moom ñetti bakkan loo ñoo ci rot li ma gënoon fas seen xibaaru euh, bitim réew jërë ngeen jëf. El Baba Wade cant ak ngërëm ñeel na ko yi ñu yëgsi nag ci suñu ponk gu mujj ci xibaar yi di xibaaru tàggat yaram yi Assane Diouf lañ ci àndal. xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbaleeg demi-finale retour démb Inter de Milan dafa dalal Milan AC dal di ko daan benn bal ci dara ba tax na sax Inter de Milan goog doon na club nga xamante ni moo njëkk a qualifié li nga xamante ni moom mooy final tey jii sax bu juróom-ñaari waxtu jote ñii di gune Pep Guardiola yi di Manchester City dina dalal ñi nga xamante ni moom mooy Real de Madrid bu Ancelotti ñu wax ba léegi lu soxal football gune gi di Seydou Sané nekk champion d'Afrique di football fee ca US Gorée dal dina xaatim li nga xamante ni sax moom mooy ab contrat fële ca club de Porto Portugal club bi ñuy wax sax Braga wax lu soxal wàllum volleyball champion d'Afrique des clubs équipe bi de Isaac dina football li nga xamante ni sax moom mooy huitième de finale ginnaaw ba mu amee défaite ci ñetteelu génnam jeexalee xibaaru tàggat yaram yi lu soxal wàllum làmb mbër mi di Bombardier di borom guddi guddi mbuur daal dina yàq kàddu yi nga xamante ni wala mu ci daal di dee kii di Sa Thiès ak ñi nga xamante ni sax mooy ay ñooñam ne nañ dañ dafa daal di daw li nga xamante ni moom mooy combat am bu doxal ci digganteem ak moom waaye sa jamono boobu sax mu ngi affecté kii di xamante ni moom mooy rëg-rëg di gunee caaroy gi nee na ko man tollagu ma fu may waxee gunee ne ko bàyyi naa la yàlla waaye sa jamono boobu sax rëg dina ko tontu nee na ko soo bëree ma daan soo xeexee ma duma la Assane Diouf euh, di koy jaajëfal bu baax a baax ci xibaaru tàggat yaram yooyu sax nga xam ne moo buural euh, suñu jotaayu xibaar kon mbokk yi lu nuyoo tàggoo wante lu jiwoo joxul jógu fa euh, tàggatoo jot ci xibaar di jaajëfal bu baax a baax Babacar Mbaye ak Assane Thiam ñoom ñi jàpp woon ci réalisation xibaar yi waaye itam jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy nag Baye Mor Thiam moom mi jàppoon ci wàllu régie bi ba dégg-déggin bi waaye itam gis-gis gi mun a leer kon ñu jaajëfal leen ñaanal leen jàmm te di ko sàkku si yéen yàlla buur bi moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ko wasaare ci àdduna wërngal këpp jërë ngeen jëf